ak dafa am ah. internaute bu bëgg intervenir donc euh, la euh, Pythagore du côté de la diaspora la ñu ngi lay ziar bu baax a baax. maa ngi leen di ziar di plateau. Mm-hmm. Euh, di leen féetliwaat sama kóol la di wax ni à chaque fois en tout cas à travers vous ñun diaspora bi ñu ngi gis suñu mm-hmm. dans le débat politique par rapport. ni ngeen ñu ci euh, boole à chaque fois xam ne ñun aussi on est une partie intégrante de la société sénégalaise euh, te loolu kenn du dugg ci détails yi euh, ba li ñu représenté ñun la diaspora donc encore une fois bravo à yéen ñi nga xam ne en tout cas bokk ngeen si ñi nga xam ne yéen ñu jox suñu cër ñu mën di wax ci processus électoral ak lépp li nga xam ne mi ngi xew ci Sénégal loolu laay nuyoo di nuyu di jox cër ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi toog ci plateau bi. maintenant sama analyse mhm. euh, on nous parle de la CDAO, on nous parle de recours on nous parle d'enquête parlementaire on nous parle de d'institution à la fin problème institution mhm. mais problème institution bi am deug problème institution entre euh, le conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale là on a activé des gens nous devons effectivement indiquer cette situation pour pouvoir prouver le report des élections. Maintenant, dans le cadre de reporter les élections, là je dis bravo à Macky Sall. gis nga bu que la dénkee réew nga dafa am li a am solo te souvent Macky Sall di ko que moo tant que Réou mi ngi ci loxoom dina fexe ba xat du dam kenn du yàq suñu nation mm-hmm. et loolu mi ngi ci bay waaram ci côté sécuritaire ak ci côté renseignement ak ci côté lépp le vrai problème constitutionnel bi ñu am moom mooy entre Macky Sall ak Amadou Ba te des na lu bari loo xam ni leeru ci d'abord dans le choix de Amadou Ba ñëpp gis nañ li fi xewoon duma ci dellu siwaat mm-hmm. am ñu rebuffé wu bokk ak Macky Sall nekk ay doomam taxaw carrément ni ñun d'accorduñ ci loolu mu nekk problème boo xam ne am problème interne mais moom mu jël taxaw ni en tout cas kii mooy sama candidat ni c'est un candidat pas un candidat de cœur mais un candidat de raison ma delloo si waat leen ni leen dafa ñëw taxaw ni leen je suis un homme politique te koy jàppale mu ne ah, mu ni dam nekkatuma président mais damay des ci langue politique gi mhm. mu wax ko mu leer nañu dans une télévision étrangère ñu dem au fur et à mesure ñu dem

imaginez-vous c'est un sénégalais comme tout le monde mais un de Diomaye Faye président de la République du Sénégal loolu ñëpp xamoon pas mënul nekk pourquoi pas passé candidat pourquoi Rose Wardini passé li gën a yomb a contrôler mooy loolu ainsi de suite li ma leen bëgg actuellement pour le moment ñi nga pas ne bëgg nañu Sénégal la situation actuelle mhm. bu leen gëm ni sax des élections vont se tenir le 15 décembre vraiment élections yi ma gis mën dem ba deux ou bien au plus tôt donc février 2025 mille décembre bi dinañ wat encore yenen yo xamni mom moy tax ba duñu dem ci élection yi encore une fois maintenant pour préserver la république mhm. il faut que Amadou Ba mu jël un peu de recul euh, mu fexé mu déggo ak Macky Sall parce que lool mom moy intérêt Sénégal parce que suñu démé dans un corps à corps dina indiwaat beneen affaire bu doy waar entre euh, te te Sénégal yëpp lay laal su boobaa un corps à corps entre taluñu ko entre Amadou Ba ak Macky Sall on laisse Macky Sall mu gérer lu muy gérer ñun ñi nga xam ne xam nañu ak ñi nga xam ne xam nañu xam nañ ni actuellement ci situation géopolitique lay wax mondial tollu actuellement, on n'était pas prêt pour des élections. On a voulu nous forcer des élections pour respecter un calendrier électoral. Mm -hmm. Mais calendrier électoral, il fait que nous jur jam. Le calendrier électoral, nous voulons respecter du jur suñu jam. man côté bobu lay andak mom. maintenant du côté politique Amadou il a tous les droits nous contester il a tous les droits nous mer mais il faut qu'on pense au Sénégal encore une fois il faut que les gens nous arrêtent De commenter les faits mais nous analyser les faits avant muy ñëw lan moo lan moo tax mu xew lan moo tax liy xew ak suba fan lañu jëm. leer na laay. et c'est quoi l'essentiel. nga daaneel ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu ngi lay euh, jaajëfal euh, di euh, fàttali ni laay Pythagore moo doon intervenir noonu du côté de la France wax li nga xamante.